ak dundalaat yéene yu njëkk ya ak dundalaat yéene yu njëkk ya ba ñu bees ba ñu bees mu ne ma waaw mu ne ko waaw booleeg covid bi covid bi lëmbaaje àddina bi bi lëmbaaje àddina bi booleeg li xew ci suñu continent bi li xew ci suñu continent bi ndax bu ñu faf bàyyi mais ndax du ñu faf bàyyi waxi chef de l'opposition waxi te ànd te ànd nañu àndee woon nañu àndee woon la ilaha illallah li ñu xam nous boole ko. def ko benn def ko benn. suqali Sénégal suqali Sénégal puisque responsabilité bi ci am. responsabilité bi nga xam ne ko Sénégal. yemul ci ñun. mais yemul ci ñun donc. Sénégal. mais dafa am ñu Sénégal. de